ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp rawatina nag bés bu ñàkk parce que dama gëm ni c'est un parti de valeurs assis et fondé sur des valeurs et sur des principes ki ko jiite chaque fois damay faral di wax ni les interventions les plus pertinentes les plus percutantes les plus profondes à l'Assemblée nationale sëñ Mansour Sy chaque fois moo ko am na profondeur boo xam ne Je crois que je l'ai découvert la première fois de 2009 dans forum sur la finance islamique euh, au King Fat fekk traducteur yi nga bokkoon voilà ko jëkk a découvrir pour moi le Sénégal sous-utilise ses hommes de valeur c'est c'est c'est terrible le Sénégal méconnaît ses ressources de qualité et ça amul réew bu def loolu ba pare yaakaar dem boo seetee tey ñi occupé le devant de la scène nekk ci tey di wax koo ci génne tey mën la wax un discours cohérent structuré basé sur des recherches et une documentation wax yëpp xaste saaga wax lu ñaaw ci nit c'est la politique au Sénégal alors dramatique donc ñu gëm ni il faut que ñu mel noonu daje autour de l'essentiel mooy le Sénégal et que mu doon l'expression d'un leadership pluriel parce que le culte la personnalité moo ñu gën a tardé Sénégal benn nit du ko changé amul réew kër sax benn nit moo ko changé waxuma laa lu ko réew il faut qu'il y ait l'expression d'un leadership pluriel léeg-léeg boo gisee yi di am sax mooy dañuy dem kooku. soxna Maimouna ci li ñu war a liggéey war nañoo góorgóorlu it équipe boo xam ne koo ci présenté Sénégal yi rek moom rek mat na lañ ko doyee mooy porter un projet pour le Sénégal parce que soo gisee yu mel nii am dañuy dem ba jàpp ni y a un projet qui émerge mais suñu daggee bopp bopp ba rek projet boobu jeex moo tax dynamique bi war a changer Sénégal man chaque fois j'ai l'habitude de dire que je pas être président la République je veux être dans une équipe qui va changer ce pays bu boobaa au crépuscule de ma vie la satisfaction de dire que sama loxo ngi ci woon bokkoon naa ci xeex bi changer réew loolu nag ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp rawatina nag bés yu ñàkk je que mbébét yi ñu amoon ay at ci gannaaw euh, projet yi ñu esquissé woon fii sëñ bi bëgg naa ñu liggéey ci sérieusement ñu liggéey ci sérieusement ba yàlla may ñu en tout cas ci at yi di ñëw ci weer yi di ñëw ak échange yi ñu war a aborder yëpp yàlla may ñu mun a jàppante li ma wax autour de principes et de valeurs et autour de projet communs ñu jàppante pour ce pays là di leen gërëmaat une fois de plus ci sama tur turu parti bi turu peuple Sénégal yëpp di wax nit nit ñu tertoo fii dafa fees suñu xol parce que chaque fois su ma demee fenn xale yi dañuy génn en masse fees fa del nit ñi dañ ma naan yow de xale yi bëgg nañ la trop waaye amaguñu âge de vote may leen mais c'est c'est pas ça le plus important parce que xale bu la bëgg xamal ndeyam bëgg na bàyyam bëgg na te it ñun nekkuñu dans une course de vitesse C'est vrai, on est pressé pour le Sénégal et pas Chaque fois, je dis, nous, on peut saa yu yàlla tuddee ñu xam ne noonu amaana yàlla du mës a tudd waaye est-ce que le Sénégal peut attendre c'est ça la vraie question est-ce continuer à vivre comme on est en de vivre à reprendre les mêmes erreurs ou même à faire pire que ce may leen comme nekkuñu ci course de vitesse bu la xale yi bëggee war nga am mën nga am yaakaar ndax xale yi bi ñu génnee ci élection dama ne gars yi ñi la tranche quatorze dix sept ans qui n'avaient pas pu voter en deux mille dix neuf vont tous voter en deux te ku jël tranche boobu rien ci école yeeg collège yeeg lycée yi il font deux millions huit cent tranche boobu ma ne suñu responsable jeunes yi dem leen liggéey ci tranche boobu parce que ñoom ñëpp bëgg nañu te ku leen accompagner. ba ñu xam seen devoir civique dem inscrire jël seen carte d'identité ñoom rek il faut faire la différence te dañ fi ñëw fekk yenn xale yoo xam ne amoon nañu déjà 18 ans en 2019 2024 ñu war a am 22 ans nekk ba léegi ay xale te li ci ëpp ànd nañu ñun ci gis-gis kon. en 2019 waaw leur carte d'identité et ce qu'on n'acceptera plus dans ce pays réew mi léegi. dootuñu nangul kenn muy tànn kan moo war a nekk loolu moom su amee dix sénégalais ñu bàyyi en rente te du seen coobare waaye administration moo leen gàllankoor loolu moom dina jaar lu mais sénégalais bu bëgg a woote euh, dix points de du M2D conseil bi vraiment lii moom dafa fees ko parce que jàpp woon ma di jàpp ma woon sax dinañu reconnaître waxuma laa nag ndax daara euh, kenn du fi donc xalaatu moom sax dinañ jóg def acclamation boobu ñuy ñaan yàlla muy doon barke kese ci ñoom ak ci ñun di ñaan yàlla daara ji yàlla jàppal leen si bu baax a baax a baax euh, di leen wax tamit ni moom mii bokk na ci ñi jëloon initiative les religieux def initiative euh, euh, médiation recevoir naa leen sama kër ñu waxtaan bu baax a baax a baax may rafetlu taxawaay boobu xam naa ni bu ko defee it am na ci seen ndigal ak seen autorisation. voilà mu ngoog. avec beaucoup d'insistance. d'insistance. ñu defee seen loolu daal laa ci bëggoon wax ci lu gàtt. di remercier ñëpp ci seen accueil di El Hadj Malick mooy dogeeg si mooy suñu chargé de communication dafa matul nag El Hadj Malick déjà il moom moom moom c'est l'exception ci kooku day la rek dafa xaw a doy waar ah dafa xaw a doy waar rek ñu ngi gërëm bu baax sëñ bi jërëjëf jërëjëf euh, monsieur président honorable Hadj Malick Malick du yees Maodo seen la présidente Maïmouna ak ki mu àndal ñu ngi leen di wax welcome Mame Malick les membres de la direction de de travail avec l'ONUDI te di leen ziyaara di leen wax ni welcome da ngeen ñëw fi seen bopp fekk fi seen bopp monsieur le président discours bi nga xam ne bii moom nga wax en ce qui me concerne c'est la continuité de la bataille que je mène que je mène depuis 68 j'ai fait 68 J'ai fait le 23 juin, j'étais au cœur de l'action à la place Soweto. sànni ma bombe lacrymogène kër Ousmane Diagne lan ma fekk ak Niass y avait Macky y avait Tanor d'ailleurs am na foo ko si Lamine Niass dina intérêt si benn maanaam ñoo sànni ni ñetti bombe lacrymogène ñoom ñu toog ak xale yi ànd ñoom ñoom ñoom sonn donc c'est dans la continuité de cette bataille-là lorsque j'ai voté non pour la levée de ton immunité parlementaire les autres ils ont préféré ne pas prendre part au vote mais moi je trouvais que c'était beaucoup plus politique que de dire non parce que c'est enregistré dans les archives de l'Assemblée nationale bi ma génnee journaliste bi song ma ma wax leen ni j'ai eu un sentiment de sidération et j'avais l'impression d'assister à une guillotine et ce que j'ai fait et ce que j'ai dit c'est la continuité lorsque ont arrêté Khalifa le président nous a réunis j'étais dans la direction de Benno Bokk parce que quand même j'ai eu un parcours euh, très sérieux, très proche avec le président Macky avec des gens de Benno Bokk Yakaar. On a fait toute la campagne électorale, bi muy avant le premier tour et après, entre premier et deuxième tour, fii la toog des unions ak yëpp toog yëpp ñu fi woon ñoom ñëpp ñu fi woon ñoom Et c'était tous des gens issus des assises nationales. Et qu'il y avait le bras politique des assises nationales qui n'existait pas. soo waxee ñu ni ñun ñu politique j'ai créé bés ñoo xam ne ñëpp ma te hasard amul te la ñu célébrer le centième anniversaire d'Amadou Mokhtar Mbow ñoom ñëpp ña mais rencontre bi moo tax étant donné que léegi mën naa ko télévision moo deux semaines ou même trois semaines Macky day toog nii ma toog nii dans Soko toog on a fait tout le tour du Sénégal mais ce que Macky ignorait xamul ñu koy encadré woon la jàpp nañu dans Soko mooy dans Soko connu et cetera pour le PAI man suñu daara la ma jàppee woon mais xamul ni lorsque dans Soko était le secrétaire général du PIT c'est moi qui dirigeais la section du PIT à Paris dans le MEPAI à l'époque j'étais également président de l'association des étudiants sénégalais en France ñun ñoo ko encadré durant toute la campagne électorale loin de la direction de l'APR erreur bu mu def xam nga ku jógee Dakar di dem Ndar mën ngeen waxtaan lu bare bare erreur bu ñu def ñu discuter vérifier euh, rectifier prochain meeting suñu yem na maa jël parole bi bi mu waxee ni sëriñ si c'est des citoyens comme les autres ñu tudd ci Béthio Thioune di ko bëgg rey bi ñu duggee si oto bi mun may ma font dire le porteur de ce que je voulais dire ma bi ñu demee Thiès alors que pendant deux semaines il essayait de parler à Idrissa Seck tey mii Idrissa Seck avait refusé de prendre son téléphone Et Maki avait une peur bleue que Idrissa, entre les deux tours, aille, rejoindre, aille rejoindre droite. Donc il a insisté, insisté, venu 2015. Idrissa ñëw mën ma jël parole bi maa jëkk jël parole ni c'est Mansour Sy Djamil marabout mais citoyen comme les autres. Citoyen ordinaire comme les autres. Président du mouvement citoyen pour la Fondation nationale rek gaa yi daal di tàggatoo si ak yeneen yu bare boo xam ne yi mën ak danse ko ñoo koy orienté ñoo ko pourtant direction après kenn parce que les jeunes en encadrement boobu des de qualité des gens d'expérience surtout dans ce man li may nekk nekk ndaw j'avais quand même mon expérience c'est pas n'importe qui qui dirige le mouvement étudiant en France créé par Mao créé par Cheikh Anta Diop à l'époque j'étais devant les Abdoulaye Wade devant les Sëñ Bara devant Mamadou Seck, ancien président de l'Assemblée nationale, devant euh, Cheikh Ba, qui était l'ancien ministre de l'enseignement. Nous sommes l'ancien président, avec Safé Diam. Nous avons une def ndam. Donc j'étais habitué avec lui, lu ma xalaatam ba koy wax. bi mu ñu woowee ñu dem toute la direction de Benno Yaakaar mu jóg xëy na Ida Ida moo doy waar. ñu ñëpp ñu toog mu ni man dama bëgg ngeen dimbali ma si lii nga xam ni moo dox sama diggante Khalifa Sall ñasa ngi toog Dansokho ngi toog Djiboka ngi toog Mimi Touré ngi toog Moustapha Diakhaté ngi toog euh, Tanor a ngi toog Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp ñu toog bi mu defee exposé ba pare ma ne que monsieur le président de baal ma en tant qu'exécutif mën nga jël décision et considérer que Khalifa Sall est coupable moi je suis député à l'Assemblée nationale et je suis et je crois à la présomption d'innocence donc lii nga ñuy ñaan man maa suuf si bokk na si te du loon sama sago nga teggi sa À l'époque, Nias était le premier à dire que d'accord. Mimi Touré jël parole sant Nias ndax li mu amee courage wax ni d'accord Mimi Touré bii tey man ma jël sama décision ni ko man d'accord si wax ko wax ko wax ko euh, euh, bu ñu génnee mu ne ma Mimi si ma suy dëgër fi tous les dirigeants sont nga am fi du def ñoom ma ma est-ce que yàlla la ma. Hmm. du ñu ay yàlla. man li ma gëm parce que man dama gëm benn affaire muy justice sama baay dafa ne ma bul wax lu bon du ko génne sa génn moom la ma waaye fu nu nërmee ne justice na xeex ba tëdd sa naaj ma ne ko li ma gën mooy wala xad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan li yaquma naasu bil qisti ma ne ko yàlla dafa wax nii li tax ma wàccee euh, ma wàccee yonent yi ak téere bi mu leen jox leen rek a tax pour que règne justice sur terre waaw mun ma yonent bi ak doli religion yi ak nu bare benn objectif laa leen jox suñu terre mooy pour que règne la justice yàlla wax na ni laa tarkunu ila alladina zalamu fa tamassakumu naar wa ma lakum min dunillahi min awliya wala tunsarun yàlla nee na bu leen jeng di ànd ak ñi nga xam ne dañuy tooñ su ngeen ko defee su leen dee duma yow mi jeng ànd ak ñoom danaa la boole si duma amuleen nag beneen allié bu dul yàlla ma ne ko c'est des alliés qui sont là man sama allié digi mooy yàlla wala tunsaruun du ngeen ci am ndam loolu la yàlla wax man ni ko Macky lii nga def doo si am ndam di beneen Khalifa Sall fu ma toog nag j'ai des interventions extrêmement violentes j'ai assisté à tout le procès de Khalifa Sall à chaque fois que ma génn je fais une intervention euh, na ah, benn intervention moo euh, mu woow mun ma yow Macky dama la rek mu ko si àdduna mu ne benn wax bu ñaaw dama ko wax li nga xam ne nii rek moom laa gëm ay je je sais ma dëkk waaw loolu yàlla yonent bi wax ni afdalu jihaad kalimatul xaq inda sultaan jair yonent bi ne jihaad bi gën bi gën metti bi gën metti xare Badar bi gën metti xare Uhud mooy fekk kilifa wala un président wala un sultan bu jeng nga ni ko ee eh, mu geex nga ni ko jeng ndax sa bakkan xaj na si man si yooyu laa sukkandikoo moo tax ma teg mun ma loolu da nga yàqul bare ma ne ko lan laa yàq Moustapha c'était le président du groupe parlementaire mu ne ma Macky de toi la tête de liste pour les élections législatives pour Dakar man comme ça man je suis pas le le de la farce je ne suis pas l'agneau du sacrifice man ne ko su leen wóoroon ni daa ngeen gagné Dakar daa ngeen jël un million dans l'appel américain xam bi ngeen xam nañ ni mënu leen gañe Dakar te Dakar Khalifa Sall moo ko yor te Khalifa Sall l'essentiel ñi koy wooteel ay taalibe sëñ Babacar ñu bugguma def de conflit avec d'accord nekk maa la euh, euh, liste avec les khalifistes et on de foofu laa taxawee moo tax bi ma génnee assemblée fàttali naa leen loolu yëpp mais j'ai donc lii itam mënu ma ànd ñëpp xam na lu lu tax mais mënu ma ànd li ma waxee woon ni xalifa ànd na si bii ànduma si surtout gis nga alxuraan moom daf ñu jàngal si amee affaire tuuma yàlla indi si ay aaya yu nga xam ni c'est presque cinématographique ci suuratu Yuusuf bi nga xamee ni Aziza jabaram Zulayqa ñëw provoqué ba pare tàcc ko waaratu allati huwa fi baytiha fa taallaqat al abwaab fa qaalat hayta lak yonent yàlla Yuusuf dafa rafet boo xam ne bi ne yàlla bi mu dundee rafetaay genn wàll gi Yuusuf la jox li si des yëpp mu séddale ko doomu adama yi kon Yuusuf rafetoon na Yuusuf avait trente deux ans jabaru Zulayxa jabaru Aziz buuru buuru c'est même pas le pharaon c'était buuru buuru Égypte ñëw dugg si néegam booba tam nekk na ko lu yàgg yàgg ba ma ba ma deux ans mu ñëw dugg si néegam dugg si néegam rek daal di rek tëj bunt yi tëj rek song ni nga xayta dafa tëj bunt koo xam ne kii sa jaam la koo xam ne kii yaa lu mu doon yow puissance bi nga xam si moom ni ka xayta ni ka ñëwal nga xaar mu ni ko ma haazallah maa daytal ni ko innahu rabbi fa ahsana maswaaya wala yuslihu az-zaalimiin mu ne kii mooy sama chef mooy sama kii moom moo ma ba ma àgg fii waaw te dafa rafetal yar bi mayaan te tooñ baaxul loolu na doon na jëm si bunt bi bu ubbi bunt bi rek buur bi dugg léegi Zuleyxa tàccu ko non Zuleyxa tàccu Yuusuf ni jëkkër ji ak xoolal lim lay fay ak yar bi nga def si moom ak ni nga defal mi ngay jéem saabu su lay xam di ko doon saako mu wàññi. mu ni jëkkër ji dama doon jéem sax mu ne kii ni ni mu la prison rek la am peine xisa bu gudd la soo gisee xisa Seydina Seydatuna Aïcha waaw tuumaal tuumaal jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam elle avait quinze ans ñu tuumaal ko waaw ñu safaan am ñu mu attal mu nekkoon éclaireur bi nga xam bi su fekkee ni euh, euh, dem nañu si campement bi ba moom mooy dellu siwaat di seet ndax amul ko fàtte dara si campement bi mu ñëw fekk Aïcha fekkoon benn euh, taxam moo doon mu ñëw digga bi convoi bi dem dafa am benn paladin yooyu quoi cest si ko benn ñu leen nga xam ne bi ñu ñëw jël ko xam bi ñu demee nag ba safaan ñëw bi dellu si waat nag gis ni ko tëdd mu wax mu jël ko teg ko si teg ñu yóbbu ko rek mun naa fekk ñu xale bu toll nii si ndaw ak jigéen bu toll nii si ndaw si suba si ba tey kenn amul fu nekk kenn mooy si moroom am yonent bi yàlla indi si surtout nuur suratun anzalna saaral la boo xam ne ko wàcce pour que ëllëg su ngeen amee problème moo ngi gidee ba tey waxti ne wax lu doy waar l'islam demul présomption d'innocence l'islam li mu gëm certitude d'innocence nee na sa mbokk jullit su fekkee ni tuumaal na ko miimal hasa uftum kabir wa uftum miimal ba tëdd sa baajo jàppee sa bopp la tey su la tuuma boobu yow en tant que jullit comme moom fan miimal bul ay duñ wax lu leen neex wax te wax bu ñu wax suñu ñaaw problème ak yaan yaaw am attitude boobu pour défendre dès le premier jour moi j'ai fait une intervention deux interventions à l'Assemblée nationale j'ai que je, je mon soutien à mon collègue Ousmane Sonko li nga xam la compétence de sérieux li mu wax si man au si moom la gën jekk voyage beaucoup du ma am temps wu Rana au niveau de la loi de finances où euh, je suis quand même obligé de d'étudier les, les propositions de mais lii ñuy wax dem naa ba seeti euh, euh, Ahmed Hott Ahmed Hott c'est un ancien le ministre de l'économie ma ne ah Amadou Amadou Hott ma ne ko gis na danga bees si assemblée ma ne ko ma ne ko ñett suñu dee déglu déglu leen du déglu waa APR ma ne ko tu développement un acteur développement comme moi waaw ma ni Sonko ak euh, Cheikh Bamba Dièye ma ni que looleen noonu noonu wala lu ko waa appel noonu noonu na nga tey yow tu es un ministre tu tu as été un acteur tu été vice-président de africaine développement tu ne peux pas être dans un assemblée nationale qui est le temple des applaudissements et des il faut mu tënku xam nga xam nga ni mbokk mi dañoo émission bi. ko nag bàyyal ba tëdd si leen déglu bu baax a baax man en tant que sama xarit la man ci ko conseil nañ leen déglu bu baax a baax à cause de la pertinence et profondeur de problème donc moom loolu laa ko nawee ils sont sérieux la profondeur de ces analyses. te ñooñu mu compte foofu amul kenn am euh, l'épaisseur analytique et la profondeur stratégique pour remettre en cause les interventions que nous faisons ay sa moo tax ma le temps des applaudissements et des votes moutonné da ngay muy dëkk bi la nekk moo tax c'est cette constance-là que je dis dans le combat que tu es en de mener et je suis à tes côtés nous avons besoin de réfléchir parce que c'est des enjeux énormes li nga gis capital bi fi nekk xam nga moo mooy les enjeux pétroliers les enjeux de nos ressources naturelles loolu yëpp foofu la et moi je suis dans cette position depuis 2016 bi mu jëkkee wootee dialogue bi au niveau de euh, au niveau du palais je suis allé là-bas c'était en 2016 les autres étaient même mon parti ne voulait pas que j'y aille je lui dis Aliou Aliou Diack donc wàllu wàllu mu ne ma ne ko bàyyi ma ma dem et j'avais dit à Macky il y a deux priorités qui surdéterminent toutes les autres priorités bu jëkk bi mooy le processus électoral le processus électoral essayer de d'éliminer les adversaires potentiels pour que ñu bañ participer aux élections c'est le processus électoral ma ne que c'est la première de nos priorités la deuxième de nos priorités c'est la gestion des ressources naturelles à l'époque j'ai dit au président dama def du benchmarking dama def du au niveau du Pérou je venais du Pérou j'ai visité deux fois le Pérou en 2015 <coughs> bien 2016 dans une mission de la Banque mondiale <coughs> et du Fonds monétaire international ma jàng le Pérou, le pays minier par excellence, il y a toutes les mines du monde. Il y a le soulevé des mailles. cette bénédiction-là <coughs> n'est pas une malédiction. Ils ont multiplié par trois en dix ans le pays. ma étudier bu baax lu tax bi ma ñëwee moo ko màcc wax naa ko màcc au niveau institutionnel le président la République n'est jamais majoritaire au Parlement réuni jamais ils sont organisés vraiment de étudier et c'est le Parlement premier qui accepte les contrats. président n'a pas la prérogative de signer les contrats pour marquer par et ce qui leur permet que ces richesses naturelles si dëkk bi la toog mais yooyu yëpp il faut qu'on il faut qu'on y réfléchisse et il faut que ñun ñëpp ñu toog et c'est pour ça que xam naa ah, de l'essence avec les vocations euh, les pavillons et tout national j'ai été dans deux commissions yi nga xam ni paix sécurité ak la gestion de nos ressources naturelles ils sont énormes expérience bu rëy rëy laa ko jëlee je crois en ça quel que soit ñaan jox du ñu mën am si moom te war nañ ko am si moom man je crois en ces deux commissions là on peut je parle pas de la commission politique je parle de ces deux commissions là et il je le la force Covid. Je représente de France le, le, le, Front national de résistance. Et il nous faut reprendre l'ensemble de ces On a fait un travail formidable au niveau du dialogue des commissions. Moi, je crois en ça. Il faut qu'on s'assied et il faut une au niveau du Sénégal. Toutes les forces vives, comme Nicolas. On discute avec tout le monde. Parce qu'on a l'un que quelqu'un à l'Assemblée nationale, il est vrai que nous sommes à et tout man que parmi nous, il y a des gens de niveau intellectuel très élevé, ils les cherchent sec. Tu vois, nous maintenant, nous, nous, nous euh, comment il s'appelle là, le président de la commission euh, bien là, c'est lui. C'est lui est extrêmement structurel. Mais celui là, c'est venu à l'Assemblée nationale, il est Mais il est incroyable. Et moi, je travaille avec lui. nous partageons une passion, c'est l'handball. Moi, j'étais handballman et c'est le président de la fédération d'handball. Et je sais qu'il est très structuré. Mais M. Seck, homme de terrain qui connaît beaucoup de choses. Mais nous, ñun day tàkk moo tax maa ngi conclure ngeen baal ma guddal bi dafa am bi ma nekkee xale en 1960 il y a eu les élections municipales de Saint-Louis. Les gens du sont soulevés. demoon ba le palais du gouvernement. buñ paree ñu jàpp leen fekk la prison de Saint-Louis était à côté de chez moi. le jour de leur sortie <coughs> il y avait Lamine et Madické Wade. je suis allé là-bas les gens du PAI qui avec Wad Mawad, qui a été mon instituteur, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale. Il y avait David Traoré et il y avait Nipti Galbert. <coughs> Madame Pauvre, les gens du PAI distribuaient ben photo de ma journée. J'étais derrière chez moi, là, toujours. Nous avons eu deux mois. Nous avons fait. Et puis, quand je me défends sous la ma journée, il n'y a pas de essai. Il n'y a dañu waxoon ni dans l'histoire d'un pays dans l'histoire toujours une heure très grave entre, entre autres qui fait se dresser dans un élan à la fois enthousiaste et tous les fils du peuple parce que la terre des aïeux est en mort. Parce que Parce que la, la, la vague de honte qui monte risque d'être annoncée à jamais. Les fronts des générations mortes, vivantes et à venir. Mais ici, en important, ils sont toujours une heure. Très grave entre autres. gis nga phrase boobu bu ma nekk xale am 10 ans la 10 ans. te de 10 cest à que jàng moo ko. phrase boobu moom mu yóbbu nekk j'attendais cette heure-là. dafa ni mel na waxtu woowu ñëw na si lii xew samedi passé au niveau du Sénégal bés bi ñàkk cette heure là ñun ñoo suñu bopp bés bi ñàkk yow ma ci un jour viendra yow bés boobu dafa mel ni bés du ñàkk day yàgg rek waaye du ñàkk dana ñëw cette heure qui dafa mel ne sonné na temps c'est à nous de traduire ça dans la réalité dajale yëpp na waxtaanee suñu dëkk man loolu laa gëm waaw dafa am un grand nationaliste tunisien bu wax ni za shaabu arab al xayaat fala budda an yastajiba al qalb fala budda an walaabudani aliyan jeli walaabudani aidi aliyan kasir nee na lorsque le peuple veut prendre son destin en toutes les ténèbres vont se dissiper ah. et il faut que le destin réponde le charbon yomb na amaat ba xayma gis nañu bu ñu defee le manifeste de l'unité ay euh, euh, citation Majmout ak euh, citation bi sur national maintenant ñu ngi ñoom laa tuddee ñoom ñoom ak wala budde am na suñu ba pare wala budde li léegi am nañu tey wala budde li xay di am nañu tase mais le peuple veut son veut prendre sa liberté ça dit simplement il faut que le destin réponde Il faut que les ténèbres de la nuit se dissipent. Il faut que les, les chaînes qui ont enchaîné le peuple jusqu'à présent se brisent. Il faut comprendre. Moi, euh, c'est un sentiment que j'ai eu lorsque j'avais 12 ans. En lisant, je n'étais pas militant du pays. Comme il y a eu beaucoup de ce n'était même pas les magous, mais ça m'a manqué d'art. Il y a un Si d'art est mon école que c'est maman, mon nom, ça m'a manqué d'art. Il n'y a pas les gars, on benn balu bu taxaw xam nga soxna yi ñu jàppale man mu naqari ma ndax moom moom sans protection biñ koy libéré man man de fa moom moom wéyoo ba ñeen yóbbu mais ñu jox ma loolu ma ji ko mu dëppoo ba nga xam ne lii moom laa def j'aurais bien aimé que xale yi jàng phrase boobu essayer que réfléchir ñoom euh, ñu gis les anciens du PAI ou bien même ma am na sama ay copains yu nekk au niveau du ñoom mën nañu euh, effectivement retrouver ça parce que si jamono jooy doon la marche te on était grand homme gis nga sama sëriñ bi ma jàngal alxuraan tous les ans xam coro seen mbaj mu jóg si maamu ñaay xale yi daara ji ay sëtam noonu ñooy lay daara ji moom moo ma jàngal moo jàngal moo du Salif bi moo jàngal Mansour bi doon def discours yi au nom du Khalife de Tidiane waaw ñun ñoo bokkoon benn sëriñ bi mu jàngal sëñ Mamour Ndiaye moo jàngal sëñ Cheikh bi nga xam ne mooy taawu seen maam jàngoon ñu ñoo yore daal centre d'excellence amul bu mel na moom fii à donc ñun foofu loolu la moo tax euh, nous croyons à la pertinence de ton combat du combat des Pastef il va falloir réunir des une jonction. dans l'intérêt du pays. xam ni li Sénégal am si ay ressources humaines déjà les ressources humaines qui étaient dans les délégations des Califes d'un niveau très élevé en arabe la facilité dans le rendu de leur discours. des gens très bien formés dans les meilleures universités. de Azhar et musulmans, avec des ressources humaines que nous avons partout aussi. C'est presque un Qu'on n'essaye pas de créer des conditions au moment où nous avons maintenant les moyens de notre développement, c'est-à-dire le pétrole et le gaz et toutes les mines. Il y a le don nouveau. dañoo toog nekk fàtte boppam moo am des gens yi moo xam ne mooy le le bonheur du Sénégal loolu rek mooy problème bi euh, dans cette précarité là l'élite prédatrice qui depuis les indépendances a tout détruit mais il est grand temps que ñu taxaw et les gosses nous ont montré le chemin pas-pas boobu détermination boobu après avoir analysé xale lanu mais li ñu jot a dund ñu jot ko gis tax na ñoom ñu bañ j'espère que le président de la république ni ko suñu Habib Bisama di waxee na seetaat boppam man j'ai un parcours avec lui moo xam ni je fais partie de l'équipe de conquête xanaa nit su fexee ba nga faral xanaa soo nee bugguma nga daanu nga war ko je fais partie de l'équipe de conquête son échec c'est également mon échec mm-hmm. c'est pour ça qu'à chaque fois que je le vois dama gis nga président teggi sa tànk lii du jëm tey su ko jom jul loolu laa koy wax ma ni que tegal yëpp si suuf benn accusation booy def euh, euh, Sonko dindi ko les gens qui sont emprisonnés libérez-les tous sans exception ba pare nag on met tout au public dans la man daal c'est ma position je suis déjà keroog Khalifa Sall dafa ñëw fii la toog yaa de cela deux mois on a discuté il une sorte de plateforme mais dama bëgg rek qu'on se mette autour parce que xam nga lu may bañ li ma waxoon dans ce bopp avec Abdoulaye Wade mu ñëw j'étais la banque de développement mu ñëw gis benn tak mu ñëw fekk ma décembre 99 euh, avons le comité central décidé de soutenir Abdoulaye Wade ma ni ko Abdoulaye Wade sans libéral mu ma waaw ma ni ko yàlla régime mu ma waaw Qu'est-ce que vous voulez faire avec la route Il y a le rejet, mais où est le projet Aujourd'hui aussi, nous n'allons pas nous contenter de rejet. Il nous faut un projet comme l'Incaroré pour transformer le Sénégal. Mm-hmm. Parce que le peuple ne va plus l'accepter. na Abdou Diouf dem dégage mu ni Abdoulaye Wade mu def pire que Abdou Diouf ñu ñëw ne Abdoulaye Wade dégage mu dégage léegi suñu taxawee nii ne Macky Sall dégage le peuple va me demander le bilan ah. des alternances passées donc il faut qu'aujourd'hui fi nga xam ne fa lañu taxaw mu wóor nu ni li nu bëggal Sénégal fii rek dañ ko na toutes les fils de la patrie taxaw parce que la terre des aïeux est en danger assalaamu aleykum wa

mais mën na leen ko passé. dinañ ko passé le discours. wala dinañ ko jël. ñaan rek ñu weer eh sa téléphone bi mooy wàcc Thank you.

ñëw nañ fi ñu tertu ñu tertu boo xam ne seet na suñu ko trop ndax yii boo xam ne li wax léegi loo xam ne euh, ci citoyen sénégalais citoyen sénégalais ak gëm-gëm guy sa gëm-gëm boo xam jullit wala catholique wala lay nu doon bu ñëwee seet si la war nañoo sentir gëm gëm boobu ñu fas ci sa kër gis nga ni fii ab daara la boo xam ne euh, gën saa gàtt ci liñ ma wax mag huit huit cent cinquante ndongo ñu fii jàng muy ñoo xam ne bi ñu duggee am nañ ci surprise ndax xalaatuñu woon sax dañ ñu xam ne ñoom ndongo yi ndax ku masqué wu euh, ànd ay nit dugg waaye dañu dugg ñu xam ne ñu koy suñu muy euh, gën a saxal yaakaar bi ñu xale mooy réew dawet nag xale boo xam ne ñu ngi teg tànkam fu mu war a tegu mooy ñu koy formé ci li ko fekk nañ fi beneen pàcc bi nga xam ne moom la ñuy citoyen mooy l'homme politique ndax engagement ñëpp mënuñu koo def ci réew ñëpp mënuñ ko def waaye war na ñu góorgóorlu ba li ñu am ay catégorie yoo xam dañuy dañ leen di gëmloo ni ñoom engagement waru leen engagement politique wax wala engagement citoyen te réew mi dafa am ñu bind loo xam ne dafa mel ni li ñu fi tubaab yi wàcceloon mooy séparation boobu ñu def ba dañoo gëmloo ni ñu ci diine moom dafa war a toog rek jàkk ja wala jàngu waaye lépp ko xew ci environnement si réew mi muy doxee yoonam newu ci loolu nag fekk nañ ko ci moom gannaaw ba nekkee kilifa gi nekk nii acteur politique boo xam ne benn Sénégalais jëppee ko ci li muy defee politique gëm naa ni Sénégalais yi ñaare jëpp nañu politiciens yi waaye mun naa waat man moom mii seen Mansour Sy Djamil di honorable député à l'Assemblée nationale ci Sénégalais yi jëpp ci li muy defee politique ndax jiital na ci valeur jiital na ci principe jiital na ci jikko ju rafet ak doxalin waaye jiital na ci courage politique aussi ndax mënoon na ne boor bi laa féete mhm. jusqu'à preuve du contraire donc ca boor boobu fu ñu jaar rek laay jaar ñu ñëpp xam nañu politique Sénégal mhm. li yàq assemblée nationale mooy ña fa nekk jàpp nañ ni seen teewaay ñi fa nekk ci majorité bi jàpp nañ ni seen teewaay assemblée nationale dañ koo war a gërëmee ak nit ba nit boobu lu mu leen ne def leen ko rek bu la xëyoon ne leen boote leen bu kenn solo ci koppati Sénégal ñoom ñu jëkkat seen bopp nag bokk ci ñooñu conscience am ci biir mbir mu ne ba tax bu taxawee ci mimbaru assemblée bu waxee léegi da ngay jàpp kon ñëw seet si ku mel noonu ñun honneur la ci ñu ñëw nag mu recevoir ñu ak njabootu politique yëpp ñu daje fii ñu waxtaan waxtaan bu am solo parce que du gërëm rek ñu fi andi nañ ko sant nañ ko ñaanal nañ bu weesoo loolu waxtaan ci réew mi te du tey du guleet tey ñu daje di waxtaan ci réew naa ñaari at ci gannaaw daje nañu ci waxtaan ci anam gu demee waxtaan nañu ci loola euh, bokk nañu nag gis-gis ci tolluwaay réew moom ndax rek mi wax ni jëm ci suñu ressources naturelles yi mm-hmm. maa ngi fàttali ko bi muy taxaw ci assemblée nationale boobaa ku déglu daan Ousmane Sonko koy wax wala opposant mm-hmm. wax li nga xam ne ay inquiétude la ci dem nañ ni ñu xew dèjà ci ni ñu li ñu ñu xaatim contrat waaye yëmb ci loolu dafa joxe ay piste ay proposition yu am am solo loolu yàgg nañ cee waxtaan euh, bokk nañu gis yu bëri te ñun de ci li ñu conseillé ñu passé gën nañoo tàllal loxo bés ñàkk ñu war a mën a jàppante ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que am nay initiative yoo xam ne mi ngi am cours am na yoo xam ni am na ba tey jii ñuy wax fii daje bi moo tax man mënumaa jot maa mun a dem ci réunion bi nga xam ne le front lancé na ko pour dajale toutes les forces vives moom dépassé na cadre boobu dafa gëm ni ñëpp war a toog waxtaan mais pour loolu am il faut que ñun ñu féete opposition wala ñun ñi nga xam ne am nañu beneen xalaatin bu bokkul ak ñu yor réew mi ñuy doxalee ñu organiser wu ba parce que dans la désorganisation débat mënu cee am concertation mën a jëm su dee les gens partent en rang dispersé ci wàllu opposition mu gën a yombal sax ni ñuy fexe ba wëlbati ñenn ñi euh, jënd leen sax laa war a wax loolu it du saxal démocratie donc il faut que aujourd'hui xaw ma assise de l'opposition la war a doon wala waaye il faut que en ñi yaakaar ni am nañu xalaat yu wuute ñoom seen bopp ñu njëkk organisé waat te loolu li xew fan yi ci réew gën na ko yombal tey contexte bi favorable bu ñu organisé wu ba noppi ba nekk benn say dëgër mën nañu xool lan mooy perspective ndax jàmmaarloo lay doon radical wala ndax sous la supervision de nos guides religieux ndax ñoom rek a mën a tax di leen sant di leen gërëm sant leen gërëm ñoom rek a mën a tax tey acteur politique yi mën a toog mu am un garant parce que lu ko mooy rek naxe mbay lay doon mm-hmm. ak ay manœuvre tey gis nañ ko fi gisaat ko fi saax da nga wax dialogue national mm-hmm. balaa dialogue national yeneen dialogue amoon na te gis nañ ko moo tax suspicion am te suspicion légitime mm-hmm. mooy ñaaw ñor waaw mooy li olof naan ku ndëgg ngay sa maam autorité du gris moom wala sax lu ñuul boo ko <laughs> donc comme dañoo yàgg gis ni ñi ñuy jàkkaar loolu de jàpp nañ ni lépp foola ak ak def enveloppe bi nii rek pour ñu ne ah jot naa wax nit ñi waaye fekk la ngay dogal dogal ko bu yàgg te ci nii wala ci nii rek di ko def yor sa mu wote loolu la mën a tax ne confiance bi am mooy mu am un garant te garant boobu kilifa diine yi réew mi rek ñoo boobu te gannaaw bu ñu téye diine bi ba ñëpp xam ne fekk nañu am nañ seen biir ñoo xam ne am nañu xam-xam bu raw ñun bu ñu am ci ci mbirum àdduna mm. ci njàngum tubaab ba tey mun nañu ñoom toogal ñoom doon les garants du tout boobu mooy premier euh, possibilité bi am bu loolu mënul am nag gëm naa ni fu ñuy mujjee mooy rapport de force rek parce que loolu yëpp ci politique la bokk du lu gën ci réew mi parce que saa su amee ay gaañu dina ci am ay bakkandoor dina ci am waaye conquête démocratique ak révolution buy changé ci daf ñu sàndal ñu ñaan yàlla nag mu may solution donc solution parce que loolu mooy ndamu Sénégal kon loolu ñu waxtaanee fii euh, ñu waxtaan bu xóot a xóot bañ toll ñu ñëwee woon farata la woon ci ñun ndax nit da ngay waaye ñëw bi waxtaan bi pour jullit boo xam ne moom mii nga xam ne may waxtaan ak moom bokk na ci ñi nga xam ne su dee dégg nañ leen de part et d'autre bokk nañ ci ñi nga xam ne rôle tampon boobu mën nañ ko jouer pour l'intérêt du Sénégal kon seen ñu ngi leen di gërëm. jërëjëf dama bëgg ma la ñu wax dama lay comprendre dafa am loo xam ne dafa am dama dem gis nga ki ñu rey ay yëmbal Baye Cheikh suñu njaboot la day animé suñu benn daara bu mooy animé muy kii di waa pour di waa ñaaw bi ñun mooy la grande famille de góor gi ñun tax xam nga ñëpp dañu jox alaaj mu mun ta dafa bokk ak sama ba mbokk yi daal di danni ɗum gurtab tolondana boy sama sahay manni aman nan gurtab tolondana boy waye sohlam du boy yàlla def xale yi barkeel képp kuñ sa ci munta tabax tabax nekk tabax nekk papay xale bi moo jóob sa papam fii ak ñoom alaaji barab en 1979 la ko jàngee ñu taxaw taxawaay bu rafet tabax muy nag suñu bastion foofu en 2012 Macky dafa ñëw ba euh, Guédiawaye dama vendredi dama rappel ñu def en transport ñu jékki jékki am mënoon vendredi loolu ko soo ñëwee fii sëñ Mansour a mobilisé tout le monde bootam rek la ñu gis ñu daal di jël ñu la foofu mën a doon dem foofu la bàyyi cher man nag vendredi ba mu fa gis nga j'ai participé à la à l'action de cette famille meurtrie. xale boo xam ne yaa ngi war bés boobu dem si sa atelier manifester woo defoo dara tëj sa atelier di dox di ñibbi sa kër ñu tiire nañ mais ñooñu gëmuñu yàlla gëmuñu yàlla boo xam ne gëmuñu sax gëmuñu ko manifester gëmuñu ko def dafa ne ndogalu yàlla rek nañ ko bàyyi waaye loolu dafa ñu posé d'une manière insistante cette phrase bi sama papa Cheikh daan naan xaw ma lu Sénégal am waaye amul justice suñ Cheikh wax li man dama tiit suñ Cheikh ak wax si dëkk bu amul justice suñ Cheikh ak clairvoyance bi nee na dëkk bi xaw ma am waaye amul justice maintenant yàlla dogal na li mu dogal dem naa ko ñaanal naa leen defal naa leen li ñu bëgg saa di di way ay way ci am na Tijaan waaye leen way moo xam daf leen di delloo yàlla waaye leen way laaj Malick bi nga xam ne daf leen di delloo yàlla donc moom toujours si topp sànni ak ñun di waxtul Tijaan waxtaan ak ñoom ba seen ba dëppal leen ba mu tax. mais un gars de 17 ans waaw sa vie a été interrompue ñu ñaan yàlla rek mu naan la. Thank you.